Matthieu saar ñaar fukk juróom booba nguur yàllaa ji kawe ji dina mel ni fukki jànq ñu fab seeni làmp génn gàttandu ji boroom seet ba fekk juróom ca jànq ya di ñu am xel juróom ya ca des ñàkk xel ñi ñàkk xel nag fab nañu seeni làmp waaye fabaale diwlin waaye ñi am xel ñoom fab nañu seeni làmp fabaale diwlin ciy njaq ni boroom seet bi yeexe ñëw nag ñépp gëmmentu bay nelaw noonu ci xaaju guddi baat jib ne boroom seet baa ngi génn leen gatandu ko bi ko janq ya déggee ñu jóg defar seeni làmp ñi ñàkk xel wax ñi am xel may ci seen diwlin ndaxte suñuy làmp ñu ngi bëgg a fey waaye ñi xel tontu leen ne li ñu yor du doy ngir nun ak yéen tee ngeen a dem ca jaaykat ya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 te it nguuru yàlla dafa mel ni kuy tukki bitim réew bi mu laataa dem mu woo ay surgaam batale leen alalam ku nekk lu mu àttan kenn ka mu dénk ko juróomi miliyon keneen ka mu dénk ko ñaar ka ca des benn daldi tukki bi mu demee nag ki jot juróomi miliyon ya dem di ci jula ba amaat yeneen juróom noonu it ki jot ñaar amaat ñaar waaye ki jot benn million dem gaspax pax na bu fa xaalisu njaatigeem gannaaw diir bu yàgg njaatigeem surga ya dellusi daldi leen laaj alalam noonu ki jot juróomi million ya jege si indi yeneen juróom naan kilifa gi dénk nga ma juróomi seetal amee naa ci yeneen juróom njaatigeem tontu ko def nga lu baax surga bu baax nga te takku gannaaw takku nga ci lu tuuti dinaa la dénk lu bari kaay bokk ci sama mbég naka noona ki jot ñaari million it jegeñ si ne ko kilifa gi dénk nga ma ñaari million seetal ame naa ci yeneen ñaar njaatigeem ne ko def nga lu baax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 jox ko boroom fukki million yi ndaxte ku am dinañu la dollil ba nga barile waaye ku amul li nga amas néew sax dinañu ko nangu te sànni leen surga bu amul njariñ bi ci biti ci lëndëm gi foofa des na fa jooy te yeeyu boo xamee ne doomu nit ki mi ngi ñëw ci ndamam ànd ak malaaka yépp booba dina falu ni buur toog ci jalam bu soloo ndam bu boobaa des na dajale xeeti àddina yépp ci kanamam te dina leen xajale ni sàmm di xajale xar yi ak béy yi mu teg xar yi ci ndeyjooram béy yi ci càmmoñam noonu buur bi dina wax ñi féete ndeyjoor agsi leen yéen ñi sama baay barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal li dale ci njalbeenug àddina ndaxte xiifoon naa ngeen jox ma ma lekk te mar ngeen jox ma manaan naan ne ko naab doxandéem ngeen fat ma te rafle ngeen wodd ma woppoon naa ngeen seetsi ma te ñu tëj ma ngeen ñëw fi man ci kaw loolu ñu jub dinañu tontu ne borom bi kañ lañu la gisoon nga xiif nu jox la nga lekk mbaa nga mar nu jox la nga naan kañ lanu la gisoon nga nekk ab doxandéem nu fat la mbaa nga rafle nu wodd la kañ lanu la gisoon nga wopp mbaa ñu tëj la nu ñëw ci yow noonu buur bi dina leen tontu ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa yu ngeen defalee loolu kenn ki gën a ndaw ci sama mbokk yii man ngeen ko defal gannaaw loolu dina wax ñi ci càmmoñam sori leen ma yéen ñi alku te dem ci safara su dul fey si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam ndaxte xiifoon naa waaye joxu leen ma ma lekk te mar waaye joxu leen ma ma naan nekkoon naa ab doxandéem waaye fatuleen ma te rafle waaye wedduleen ma woppoon naa te ñu tëj ma waaye seetsiwu leen ma ci kaw loolu dinañu tontu ne borom bi kañ lanu la gisoon nga xiif mbaa nga mar nga nekk ab doxandéem mbaa rafle nga wopp mbaa ñu tëj la te toppatoowuñu la kon dina leen tontu ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa su ngeen ko defalul kenn ci ñi gën a ndaw mban ngeen ko defalul noonu ñii dinañu soobu ci mbugal gu dul jeex waaye ñi jub dinañu tàbbi ci dund gu dul jeex